su ma ne la Rokhaya Diop rek sa xel war na dem si message yi man la doon envoyé te doo ma tontu sama feebaru daaw bi ma wax ko fii muy le lundi le mercredi un certain Ablaye Sylla Ecotra yónnee fa ay nit ñu ne dañ fa jaar gis foofu ni mu mel dañu ñëw pour defaraat ka mais ak condition que dañ leen di jàppale si parrainage loolu fan la tegu man du ma wax Macky Sall dara de parce que dafa ut ay nit yoo xam ne dafa jàpp ne ils sont te soxla nit ñi moo leen ñor mu teg leen si ay poste pour ñu daw si soxla askan wi mais il s'est trouvé que non ma xool sa programme gisuma si dara lu bokk ci problème boobu muy problème mu Tëngéej ak problème mu Bargny pourtant Tëngéej mooy troisième ville au niveau du Sénégal à part Gorée et Dakar bu ñu masaana soxla papier te ngeen leen daan ñëw boon kenn waru ko mën a fàtte bari ñu bokk ci département de Rufisque gannaaw raay nuy lap ci biir ndox mi suma feebar mooy mouchoir fu ngeen ma fekk maa ngeeg mouchoir samay bakkan day sotti te ma suma dal deux ans yi ma def foofu la ma commencé manuma daw askan wi nag parce que dañ ma dañ ma jël am ci man yaakaar fal ma bon nag fii bu ma fi ñëwee seen soxla rek laa fiy wax du ma xas kenn du ma critiquer kenn mais ku ma def ku def loo warut def dinaa la ko ci kanamu nit ñi ñu dégg ko il faut respecter les gens di wuy téléphone di xam si lan nañ nekk nuy lap ci biir ndox mi mënuñu génne war a génne amuñu accès pour sortir pour ñëw liggéey suñu liggéey di am ay deux jours toog suñuy kër jàpp naa ne rafetul te formation politique bi nga am je pensais que lu la woo si lu demee noonu rek war nga si man taxaw